moi dans mon hôpital fi il y a des médecins des généralistes ak ben cardiologue pour nous jappeler à bi té askan bi euh, ya amna yakane gis nañ ci sen bop da on en gros 130 personnes 30 euh, personnes pour la cardiologie et 100 personnes en consultation médecine générale c'est vrai que dañuy avons mais les premières là ñu koy soga def dañ ko Nous avons ko dañuy bëgg sax saxal ko diko def wër bu ne chaque mois ñu def ben commencement rek la dinañ dolli mais am nañ daal 130 personnes consulté nañ gratuitement am na ñoo xam may nañ leen garab ñu jàppale leen ci njël ordonnance loolu daal mooy bilan journée bi en gros. ñaan ñu jógee feneen Castor ak yeneen quartier liberté yi yëpp si cap liberté 5 liberté 4 parce que dañu def euh, caravane ñaari fan jël oto def ci essence ñu wër commune bi yëpp ñaari fan jeudi ak vendredi yëpp di ko yëgale moo tax nit ñi ñëw quoi c'est euh, résultat yaa ngi noonu jàppale nañ nit ñi nit ñi daal kontaan nañu. premier jour nga am ci 130 personnes.

appel la présent. ne ci président ndax ñun président président ci suba nga mi journée bu baax a baax a journée de consultation bi suis guleet parce que c'est bii quatrième fois bu may à ay journée de consultation yoo xam ne si dugal bu kuy wax social nag euh, Ababacar Sadikh Bèye moo tax parce que social tam daf a la manière de faire le social bariwul si du si wax lu bari du si communiquer lu bari mais tey jii foo laal si gox bi si côté social dugol na fi loxom lu nu xam lu nu xamul ñun ñi nga xam ne guddeex bëccëg nga ngeex mom donc euh, li dañ koy rafetlu. di sante euh, docteur. Euh, Ndiaye di koy gërëm di sant waa GC yëpp suñu jigéen ñi euh, ñoom Absa ñoom Seynabou ñoom euh, Lamine Faye euh, guddeex bëccëg ñu ngi woon si liggéey bi donc di dolli sant yàlla bu baax a baax te di ñaan yàlla si kii bu ñuy dem nii échéance yi ñuy dem nii yàlla na ko yàlla jox si barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. waaw di féliciter Pape Amadou Ndiaye parce que vraiment acte lii acte yi mu posé nii. mooy acte yi nga xam ne fi ñu toll ni moom la askan wi soxla vraiment parce que fi toll nañ ci fi nga xool ni dama koy wax chaque jour au passé ni ñi nga xam ne ñi ngi def politique ma ne dañu toll foo xam ne askan wi dañu soxla ku leen dimbali ci ci santé wala ci transport wala boog ci seen seen dundin te lii mu def nii mu ëpp solo parce que nit ki nga may ko jot mu mën a faju te déplacé wul ñoom ñu déplacé ñoo fekk si leen loolu bu sax politique bu acte dara mais yalla dalay fay donc motax tax ñi koy ñaanal lim bëgg yalla defal ko ko moog ñi mu àndal di politique ak seen mouvement bi yépp aussi ci occasion bi féliciter le directeur du port Dakar Babacar Sadikh Bèye xam nga Sénégal moom bo gërëmé nii rek dañuy japp ne da ngeen am ay relation yu proche bu may wax rek dëgg neex yàlla amuñu ay relation yu proche mais gis naa nit ku dal la nit ku am yar am teggi aussi euh, bi ñu ñëwee fii yëg nañ ni acte li am yëpp loxoom dugg na ci donc euh, teewul waaye jëm euh, dooleem ñëw na xalaatam ñëw na xelam ñëw na donc lii mu def nag lii Pape Amadou def mu jàppale ko ci ci biir Derklé maa ngi ñaan tamit waa Derklé yëpp ñu delloo ko jàppale.